temps Seynabou Ndiaye gisee. waa def feebar ah, waa. moom bu mu juddoo la judduwaale feebar bi ba am na 17 ans nii boobu ba léegi nag mag papaam ñu ngi faj amul fu ñu demul dem nanu ba ñu yebal ñu Dakar mais moyen bi ñu war a demee xalaat nañu suñu demee amuñu yorunu papaam dooleem bariwul jàmbaar la torom nag. mais mooy bi ko war a faj awma ko yoruma ko te mënuma koo wékk ci benn doomu aadama njaay rek ndax gor su ne gor nga waaye metti na man mi tëdd ak moom du ma nelaw man léegi man dafa mel ni sama feebar ndax damay jànkonteeg moom ay moroomam ñu ngi jàng ñu ngi defal seen yaay moom mu tëdd benn palaas xawma lu koy metti ay jooy su guddee damay xam ni mettit lay fanaanoo dama koy tim papaam tim ko léeg-léeg papaam wi ñaaru bëgg a faj doomam mais amul doole man mi yaam ëmb ko day metti samay nelaw jeex su ma koy may lekk su ma ko tërul di ko xol du mën a lekk ni mu daan tooge sax mënatu ko mu metti torop ma xam ni metti lay dund mënta wax mënta dox mënta def dara li muy def fépp fi muy tëdd la koy def waayam demewul noonu mu metti torop nag nga xam ne sama doom ji metti rek lay jànkonteel te lépp yàlla santaan naa yàlla julli ci Seydina metti na tëraayam bii ko indi lii tëraay bu yàgg bopp bi dem ba taab yoo xam ni tey jii ku ko tiimoon nga xam ni tëraay rek ku ko indi nga xool tànkam bi ni ci ne nga xam ni tëraayu ko indi du ne ko de kenn du jur sa doom sàggane ko kenn du jur sa doom néewal ko mais njaboot di nga yore dara xalaat war koo def sa cin nga fàtte waaye du sàgganewu ma ko ndax maa ko jur at yi mu am vérité ku ko wax danga naan amu ko def feebar a ko jàpp sama ma sama doom man ma duma duma ko seetaan de ma ko ndax li may wax am na fu ma ko teg négligé wu ma ko dama ko beddi maa ko jur sama biir bi ëmb ko fu ma sonn ci nag yàlla moo ma ko jox teg ko lii mu ko teg mu metti torop di guddee day yuuxu boole kiris di koy xëyee di ko xëyee ba ba ba ngoon ja soo ko joxee lekk lii day dugg lii day génn toog bi mu daan toog mënatu toog dama koy xool rek xam ne mu ngeeg métit métit bi mënu mag may ñaan ñu may dégg jullite yàlla yi xam ne tey jii dañ ma jàppale sama doom ji tëdd ngir yàlla luñ ma ci jàppalee faj ko rek faj ko rek lay sàkku di lancer appel ñi nga xam ne tey jii ñu ngi janoog man jàppale ma sama doom ji ku ma ko fajal te yàlla tax ndax li mu war ci yaramam man mënuma ko papaam mënu ko te mënuma koo wékk ci doomu aadama wallaay yi maa ngi ñaan ñu dimbali ma jullit te yàlla tax uba ko faja rek laa bëgg laay maa sant yàlla baax nag jullit Seydina Muhammad xam ne lépp yàlla la maa sant bu baax a baax. waaw salaamaaleykum wa ñoo ngi euh, ñëwaat di nuyu ñëpp di leen sant di jiital ci nuyo bi euh, directeur Sey Latir bi nga xam ne moom moom moom site bi nga xam ne mooy Thiès Info di sant aussi waa Thiès Solidarité yëpp ak euh, ñi ñu fi nekkal. di mbay suñu frère ak euh, Habib Diop ak euh, Assou Thioune Moustapha Cissé membre yëpp vraiment tey Thiès solidarité ñëwaat ci cas boo xamante ni yaakaar naa ni kenn nettaliwu ko kenn ndaxte suñu yaay ji li nga xam ne kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fi ñun gis nañ ko euh, loolu nag ñu ñëpp ñun ñoo ko gisandoo ci loolu tamit xale boo xamante ni yaakaar naa ne mën nañ ne du xale ndax ku am 17 ans ay moroomam fi mu nekk nii ñoom ñëpp. ci ay jigéen ñi sëyi nañu ñii ñi nga seeni atelier di liggéey ñii am nañu bac ñii ñi ngay def leneen ak leneen waaye moom tawat gi nga xam ne moom moo ne ci moom moo waral tey euh, maanaam màggaayam sax daal di des ba mu toll nii mu toll ci loolu tamit dañuy jaar toujours fi nga xam ne rek fa la Thiès Solidarité daan jaar parce que yaakaar naa ne tey euh, am na ñoo xamante ni duñu toog di xaar lenn lu dul gis ñoo xam ne dañu leen ma dimbali te yàlla tax ñu dimbali leen te tey yaakaar naa ne ndimbal li amul kenn ku ko gën a yelloo ki nga xam ne moom moo tëdd ci lal bi ci loolu tamit ñu ngi ciy lancé waat appel képp koo xamante ni yaa ngi ñuy suivre boo ci mënee jàpp te yàlla tax na nga si jàpp di lancé appel aussi diaspora bi nga xam ne aussi dañuy faral di jàpp ci action yi ci solidarité di leen wax ne lii tamit ñoom ñoo ko gisal seen bopp di lancer appel aussi fondation Servir le Sénégal di lancer appel le président de la République ak tous les autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Thiès nga xam ne tamit ñoom dañuy faral di yëngatu ci cas social ñoom tamit ñu ngi leen si lancé appel ak bépp bon volonté ak képp koo xamante ni da ngay dimbali te yàlla tax lancé nañ la ci appel di lancé appel aussi nga xam ne moom mooy euh, Ibrahima Badiane Iran Ndaw bi nga xam ne aussi tey euh, mën nañ ne sax Euh, Thiès la dëkk ndax wax dëgg gis nañ aussi taxawaay bi nga xam ne am na ko ci tele bi rawatina na ci social bi nga xam ne ci lay dox donc ñu ngi ko ciy lancé appel moom it lu mu si mën a jàpp aussi mu jàpp si ak képp koo xam ne daal yaa ngi suivre suñuy euh, suñuy suñuy kàddu ci loolu tamit euh, am na ay contact yoo xamante ni képp koo xam nii bëgg nga si jàpp nga daal di koy mën a woote boo ci wootee dina di nga di nga ci am euh, réaction bi ci njëkk mooy numéro fondation Thiès Solidarité 77 euh, la 562 98 92 77 562 98 92 wala képp koo xamante ni tamit bëgg nga euh, jot yaay ki nga xam ne moom mooy malade bi tëdd 78 la 242 94 00 78 242 94 00 je crois que ni noonu lañ ko gisee wax dëgg yàlla lii fi nekk. képp koo xam ne jëf nga ci rek te yàlla tax suñu borom moom moo lay fayal boppam ndaxte nekk na loo xamante ni lu tiis la ndaxte malade war na jóge fii dem ba dakaar mais dakaar boo fa demee te xamoo fa kenn yaakaar naa ne amoo fa prise en charge amoo fa dara pour nga faju day metti rawatina ci koo xamante ni dafa néew doole ñoo ngi leen sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ñu ngi ñu ngi démarré nag ci suñu nuyoo ci waa Thiès Info Sey Latir mention spéciale. parce que lii dafa rafet euh, coproduction bi wax dëgg yàlla cees waa yëpp ñu ngi koy rafetlu li may wax chaque jour rek tu es numéro un. kooku du deñ Thiès. c'est la dire Thiès info. merci parce que lii yombul déplacé wu sa caméra ak sa lépp ci zéro franc. taxi sax doo nangu ku la ko jox. kooku jar na leeral. ñun nag Seyna bu mii suñu mag la xale bi tëdd am ñaar fukki at ak ñaar wax dëgg 17 ans. tëdd nii jàq lañu def ñu dem woow yi man ak sama waa ji ak Seynabou njaay mi waa Thiès waa Thiès solidarité ñoom xaadim sàmm association bu ne mi ngi fi waaye Thiès solidarité wax dëgg yàlla gis loo xam ne nii tey subaak ngoon guddeeg bëccëg même suñu leen joxul ñu génne seenu poos génne seenu kees ñëw di jàppale xale bii première soin yi wax dëgg yàlla ñii ñoo jara dimbali man damay lancer appel ci président Macky Sall di ñaan di wàcc Marème Faye Sall man xam xam naa ko bu baax a baax a baax xam madame Mbengue ñun dañ leen di ñaan ngeen jàppale ci solidarité mu jàppale xale bii suñu papa Iran Ndaw déggante nañ téléphone ñu ngi lay ñaan nga gëstu ci solidarité ñu jàppale gone gii wax dëgg yàlla kii soxla na fu mu tëdd soxla na éponge soxla na meew soxla na couche parce que lépp fi la koy defee te perong yi dafa wow ñu ngi lay ñaan yéen ñi nga xam ne yéenay responsable yi nekk Thiès gëstu leen Thiès solidarité ñu jàppale xale bi parce que cas bu nekk Thiès solidarité mi ngi ciy dugal loxoom maasama ak bii nag kon ñi ngi lancé appel responsable politique yi nekk Thiès yëpp ñi nga xam ne ni tey ñi ngi def social ñëpp ñu ngi leen di woo si mbir mii ngeen jàppale Thiès solidarité parce que wax dëgg yàlla ñun Thiès waaye suñ jàqee Thiès solidarité lañ jëm kon nag yéen yéen a war a yëkkati jàppale ci soldat mu jàppale feebar yi gis nga ñi accident yi ñuy wax ak problème yi ñuy wax ci dëkk bi yëpp ni ñi feebar di dee ko ëpp kon soo leen jàppalee ñii nga xam ñooy jàppale ñii feebar di dee yu bari dina wàññeeku ci dëkk bi at ñi feebar amuñu ay moyens yu ñu dem hôpital comme kii wax dëgg yàlla ñiy jóg di rey seen bopp di génne seen poche te mënuñu ko kon jàppale kees gii di Thiès solidarité moo gën fuuf ñu ngi lancé nag appel ñoom ñëpp commencé ko suñu marraine marraine fay sal wàcc madame Mbeng ñun xamante nañ bu baax ñu ngi leen di ñaan ngeen gëstu ci solidarité ñu jàppale malade di nga xam ne ni tey jii ñu ngi ciy def seen doole te kees gi dara nekk fi di woo suñu pré parrain président Makhtar sàmm wax dëgg yàlla Xaadim sàmm mention spéciale parce que Thiès waa suñ suñu jàqee dañuy woo le président muy Xaadim sàmm kon yàlla ko yàlla dimbali taxawu ko ak groupe bi mu àndal ñu ngi def liggéey bu extraordinaire à Thiès ñun Thiès waaye daal suñ jàqee ñoom la ñuy woo ñu jàppale nit ñi wasalaam merci beaucoup.